tuumaal nañ ko lu nekk mais buñ caaxaanee askan bi loolu nag doyu tey ñu ne nañ oh, nañ dem projet jigéen la ak nangam ak nangam ak nangam ak ñun xoolal Ousmane Sonko buñ ko fekkoon diis jigéen rang ñu ngi baal ma ci kàddu gi bu comme baayu jàmbur la quoi bu jugee ci kii ñëw kii bu jugee ci ñëw ci kii boobu lañ ko gën a bëgg ñun. boobu lañ gën a ànd ak moom boobu lañ ko gën a mën a ñemee jox suñ carte barke alxuraan maanaam dañuy sonn bàyyi xam nga lañ koy xam nga luñ koy fekk ñun du ñu neex mm-hmm. mooy mu jël réew mi. lépp lu mu waxoon sénégalais yi teguñ suñu bat foofu lañ koy bàyyee ba ilaa yow mi din te te loolu du ma sa am parce que xam nañ jëmm ji kan la su may wax ci moom sax maanaam dañ naan kii qu'est-ce qui se passe parce que koy koy wax ak di toog ak moom di da xam lu bari waaw dangay xam ne kii maanaam nangam ak nangam te ñoom jamono ji nu ñuy gën di xuuse di gën di am gàcc parce que kilifa diine yëpp xam nañ li xew ñëpp xam nañ li xew ñun nag ñun ñun mouvement jeune marabout de lew nañu seen may président mouvement jeune bi am na lu rëy lu ñuy wàcc Baye Mbaye dafa demoon tukki voyage yi ñibbisi na suñ toogee waxtaan ba pare boobu patriote yi laa koy lancé am na lu rëy lu ñuy wàcc loo xam ne danañ def open press man ak Baye Mbaye Baye Mbaye MC Niass doomi Mawlana Cheikh Ibrahim danañ def open press bu mag toog pare pour jàppale Ousmane Sonko fal ko 2024 askanu Sénégal nag nañ xëpp seen yaakaar seen dernier sens mooy Ousmane Sonko dégg naa fan yii ñu créé fi <laughs> ay ñoo xam ne kenn xamu leen ñu ñu naan ñu naan <laughs> xale yi dama leen romb ñu naan ñooy sama dernière chance ak nangam nangam nangam waaw ñooy sama avant dernière chance la waroon a wax waaw dernière chance moom fii ci réew mi kenn la premier opposant du Sénégal it kenn la. waaw parce que moo dagg buumu njaameel gi opposition yëpp nekk ñoom opposition yëpp dañoo waroon dem di jox Ousmane Sonko àllarba ndax kenn amatoon hurrier pour wax kenn ñi ñëpp fit ubbil ñëpp bu caaxaan jeexee dëgg des nañ koy wax kon seen caaxaan caaxaan nañ ko arrêté Adji Sarr maa ngi lay woo di la xamal ne la sénégalais nga bul yàq sa bul yàq sa der bu ko gën a yàq sax laay wax na ba pare bul yàq deru bul yàq deru jigéen ñi parce que am na sama benn xarit bu dëkk côté Kahone gannaaw Kaolack Adji saar la tudd <laughs> su su ma su ma ooyee benn jour daf maa woo sama téléphone sama téléphone sonné sama doomu ndaw bi dama ñam papa Adji Sarr Adji Sarr Adji Sarr moo lay oo ba pare na ma ni papa yow mii <laughs> wallahi lazim na nga papa yow mii papa Adji Sarr bu ko wuyu barke si yonentu yàlla Muhammad na nga papa Adji Sarr bu ko wuyu ma recorosé def téléphone bi may livre na ko aji noo def mu ne ma maa ngi fii ma ne ko sa téléphone bi dafa sonné sama doom bi daw ne ma Adji Sarr Adji Sarr mu ne ma sëñ Cheikh ko naa mu ne ma sonni gi ma sonn maag yàlla rek ko xam képp ko enregistré sama numéro jamono ji jëlatoo ma barke alquraan karim mu gi ma dindi turu Adji Sarr def ci soxna Sarr xoolal imaginer loolu kon delloo sil sa xel delloo sil xel même lii bu doon dëgg la sax war nga ko rusa publiquement maanaam baatu viol kañ nga ci daan damu dañ maa dañ maa dañ maa tëddee kañ dem ba daan léegi sax waatal ne laal maam mas nga ma mas nga maa laal mas ngaa jëfandikoo ak man waaye violé woo ma laal maanaam laal jigéen kañ lañ ci daan tëj nit bu dañ ciy tëj nit bu yowoo ñu waaj bu dañ ciy tëj nit bu yowoo sénégalais yu bëri waaj de ah, ah. ah ah nañ nañu bàyyi temps yi la yaakaar naa émission mu jeex euh, gis nañ fait démb dañu dañu yëg ne en fait euh, Ousmane dem ba procès bi mooy loolu sax mais dañ ko laaj encore li nga xam ne mooy deretam dañ ko laaj deretam <laughs> waa xam nga caaxaan caaxaan yi nekkee yëpp non non liñ soxla xam nañ ko foofu moom bu fa yeggee suñ bakkan lañ suñ bakkan la ñuy joxe ndax euh, bakkanam moom Ousmane moo ñu gënal suñ bos waxeñ la nag déggin la laaj ndax benn bakkan boo xam ne mën naa sauver Sénégal yëpp moo gën a moo gën bakkan boo xam ne mënta sauver dara man sama bakkan bii ñenn ñenn rek la mën a moom bakkanam bi nag mën naa sauver Sénégal yëpp ëllëg bu jëlee réew mi kon suñ bakkan lañ lañ nangam nañ bàyyi xel pikiir ba ñuy dugal ca ca deretam di xëcc deret ji nañ bàyyi xel buñ fompukaay ba ñuy fompee deret ji di ko dugal maanaam ñun ñoo óolootul ci benn côté docteur bi waxoon na ko attendre Adji Sarr PV yam defoon bu leen doyut ñun doyuñu te docteur boobu Sonko xamu ko woon ñoom ñoo ut seen docteur bopp dem yóbbu fa Adji saar docteur bi xool ko ne kii pendant nangam masul def rapport te moom mu ne daa une semaine daa nangam defoon na rapport docteur bi wax leen loolu ñu oo capitaine Touré capitaine Touré def ay rapport xool toog waxtaan ak moom wax déglu Adji saar déglu Ousmane Sonko keroog la xam ñaari ñaar ñii ku ci wax dëgg. wax ko tey sax may ma tuuti ci biir loolu yëpp nag mu retrouve ñu retrouvé wu waat jël jël jël rapport yooyu yëpp. jébbal ñi nga xam ne mooy justice ñu ne ah ah lii doyut ñu ñu jël capitaine Touré chargé ko ay mbir mu ne bu fekkee chargement yi la ñu ma bëgg a ma démissionné man dëgg ci laay dox attendre naa kii attendre kii docteur bi lam waxoon doy na ko projet bi yàlla atti na ko nañ noppal seen bopp ñu atti projet bi waaye ay nañ jël deretam ak pour lan pour Ousmane billahi bu heure bu nangoo ñu jël deretam loolu moom man la na ko nangu ah, na na ko nangu na nangu ñu jël deretam bu dee bakkanam bi da koy foye ñun foyewuñ ko caaxaan yii ñu nekk nañ ko arrêté tournée bi mu commencé def donc moo leen tiital. lu bëri de commencé dugg seen détails ak seen seen. dëkk bi de daa yëngal àdduna. xaar ba sax yëngalagut àdduna bi xaar ba mu dugg Saalum da nga fay gis ay sëriñ sol koppati topp ko. waaw seen leader bi kenn du moom. waxtaan bi yàgg na lan ngay tàggatoo ak ban message ngay joxe. amul tey duñ jël kenn téléphone téléphone yëpp fay xaar tey fayuñu tey te dañuy wax ci actualité tey. mooy di sant di gërëm rawatina yow nga xam ne sama nitu bopp nga waaw xanaa kay parfois nga xaw a raar rek ndax boo nee ci boo nee ci Wally Seck moom kenn du la gis da ra da raar lool waaw waaye Wally bàyyil ñu ko tuuti mu ñëw fii ndax waaye idaali idaali ñëpp la euh, baax na xol bi yaatu na aussi tamit euh, fa tabaarakallaaw maa ngi la jàppee ci ziyaara lew nañu seen ba waaw nga bàyyi sa activité yëpp ñëw ñëw ba lew na ma yëkkati dara di la ko jox nga ne ma sëñ bi ñaanal ma soxlawu ma ko ñaan rek la soxla ndax boo xewlee damaa war a ñëw loolu sant yàlla la ndax nit kenn du ko cofal bésam kenn du ko cofal jàngoroom kenn du ko cofal aussi tamit ay ay ay ay kilifaam nit boo ko cofalee yii rek mu bala cofaloo ma sama lenn di sant sénégalais yëpp di leen wax ni xeex bi dafay soog di commencer lépp lu wax lu ngeen jàpp ne lu métti la jàpp leen jàpp leen ne siburu la fii ak 2024 nag jàpp leen ne Ebola la corona la maanaam gën naa pur si buru ci parti patriote ci parti Pastef bi mooy lan mooy yu gën a métti mi ngi ñëw waaye nu mu ñëwee rek nañ ko dékkoo noonu bu dee ay yàq der la bëgg nañ bu dee ay saaga la bëgg nañ bu dee tëj kaso la bëgg nañ bu dee leneen la bëgg nañ lépp lu ñu pare pour ñëw fekk suñu ci pour pour pour Ousmane bu mu nekk président 2024 pare nañ pour nekk lu ko gën a raw te Ousmane loolu la tontu justice bi def na ko projet bi lu mu leen jaral lu ko ëpp jaral nañu ko te projet bi dafay soog di door parce que ñu ngi soog di jàkkaarloo ma ak yow parce que bul fàttali ne bu njëkk ba bi mu jàkkaarloo ak Ousmane njëkk ko attendre bi mu waxee ba pare Ousmane wax def na ko da ngay del ñëw di signé kaddu ga ko Ousmane waxoon ba tey mooy dëgg Ousmane nag fi may tëjee mooy ku xamul ne walliwu la ma xamal ne la walliwu la billahi wa xam nga Sénégal xam nga Sénégal dañuy jaawale lu bokkul dañ naan nit buñ ne bu buñ noo barke alxuraan mandikat mandikat mën naa nekk walliwu naankatu sàngara mën naa nekk walliwu déglu fecckat mën naa nekk waliwu théâtre kat mën naa nekk waliwu seen genre gi nu mu tudd kii euh, journaliste mën naa nekk waliwu waliwu du du fiñ ko foog ah bañ a nekk waliwu do da defal ndànk mën na di fanaan ci yàlla ngay fanaan ngay fanaan ci feneen de waaw bàyyi bàyyi jàmbur euh, caméraman mën naa nekk waliwu buñ jàpp ne sëriñ rek moo war a nekk waliwu buñ jàpp loolu jamais de la vie parce que waliwu boo nekkalee yàlla ci lim nekk rek moom ci ci loola la lay jëlee def la waliwu mooy boo xam mooy boo xamut mooy boo xam ne xam nga ko te sañoo koo wax ñett yooyu moo am boo xam ak boo xamul ak boo xam te sañoo koo wax ñett yooyu la artistes yi yi ñi ma ci xam ne ay waliwu lañ bëri nañ dañuy làqatu ñi ma ci am xam ne ay waliwu lañ bëri nañ dañuy làqatu billaahi wallaahi watallaahi mën naa si kenn Modou Pen mii di di théâtre Modou Pen kooku nitu yàlla la bu guddee bu la waxee nam bu la waxee yi muy def da naan da nga naan moo tax nit munoo ko xool nañ kii nangam moo tax ba ne Ousmane Sonko Ousmane Sonko waliwu la euh, ñu bari dañ naan politique seen nangam may la yéen da a dof Ablaye Wade waliwu la ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen Lamine Gueye yi mu fi waxoon mi ngi tege ba tey mi ngi am ñeneen ñi maanaam dafa am ñoo xam ne ñu wax démb koy gis tey parce que ñoo ñooñu waxoon ne Macky Sall mii nangam ak nangam bu ñëwee président bi ñëwaat après Ablaye Wade su tegul sénégalais fi ko sénégalais doon xaar bu amul sax sénégalais ci palais ba lañ koy fekk génn ko te loolu ba mu koy bind di ko wax loolu kañ la ñu ne ko à part moom mu ne à part nag kii ñëwaat sénégalais danañ ko jox bopp danañ ko topp mais kooku moo mën redresser mu redresser politique jubal confiance mu ànd Sénégal mais kon nañ def attention Ousmane Sonko waliwu la xam nga lu mu wax juge bi ma tëj foofu daf na ko del ñëw di signer maanam chaque semaine nga ñëw di signé wane na yaa ngi ci réew mi xam nga fa la foofu la foofu la caaxaan yem quoi ku ne ci réew mi xam nga ne mi ngi ci réew mi ak newul ci mi oo ko téléphone ne ko yaa ngi ci mi rek bu sonné mu ne la maa ngi mi bu sonné wul nga xam ne newul ci réew mi ko nangu passeport am fu muy yaa moom aéroport yi fu mu ne mu ne mu ne mu ne juge bi xam nga lu mu wax juge bi duñ gisante waat mu ne ko mag yow duñ gisante waat barke yonentu yàlla Muhammad juge bi dana ko del ñëw chaque semaine di signé mu reetaan ne ko maa ngi yow duñ gisante waat ah, gis bi gis bi ne ko da nga ci wala lu xew ba duñ gisante waat pourquoi nangam tàngal foofu dóor taabal ji mu ne ko duñ gisante waat man ak yow li ma mu ne ko li ma la wax ba ko xel mu ne ko dossier bii mu ne mu ne ko waaw mu ne ko bu ma doon yow nga teel cee génn mu ne ko am na ñoo xam ne kenn yàlla du du nangu kenn tàngal seen xol te bëgg naa la lool bëgguma nga tàngal sama xol te bëgguma wax ak yow wax ju sori parce que dafa am lu ñu la dénk sénégalais yëpp moom ko nga war ñoo jiite war ñoo nangam nga bal ma ak jox ko loxo jërëjëf kooku après la def audio ci ay famem audio yi mu ngi doon tas la def ay audio wane ne Ousmane Sonko mii ñoo ko waa nit ku baax la wax ay seede ci moom bim gaañoo kan nga gis gis ba bim gaañoo kan nga gis ku bokk ci état ak ñu mel noonu dem jaale ji ko jaale ji ko Ousmane Sonko sol dàllam imaginer koo jël bëgg koo tëj def ko def koy soxor mu solaat daalam dem jaale ji ko kooku bu ñu ne la walliwu la nga ko war a weddi walliwu mi ngi commencé ci ñu baax ñi bëgg la Ousmane Sonko ak Wally sekk nag waxoon naa ko dañoo bokk biddiw dañoo bokk dañoo bokk biddiw boo xam ne maanaam euh, <laughs> waaw daal après da ngay joxe dara yow su may wax ci wàll da ngay joxe dara waaw na loolu day ëpp day day diis <laughs> yaa ngi dégg Euh, xam nga biddiw bi ñu bokk loolu nag ñuy bind xaatim ñoo ko xam bala nga leen bëgg da leen bañ ba pare ñoom si yàlla foofu la tënk seen biddiw waali waali amul kenn ku ko bëgg te bañoo ko woon Sénégal yëpp ko bañoon gone gi li muy sol gone gi nangam mais léegi kilifa yi bari dañuy làqat di ko déglu mhm. léegi mais nag Sonko it foofu la débat débuté moom it ñëpp ko bañoon parce que ba muy départ man mii. ci ñu ko contrôle ci laa bokk mais da dem ba ci biir ngay yàlla dala woon ngay xam réalité parce que nit boo tëbee rek bëgg ko da ngay tëbaat bàyyi ko mais boo ko bañee bëgg ko eh, xool ko ci jigéen bu la bañee bëgg la bañ la bañee pare tourné bëgg la àdduna mënta changé ba mu bañati la waaye bu buñ la bëri rek mu bëgg la bañ dugg mbañeel ñëw du la bëggati ba ilaa yomi diin noonu la yàlla tëggee àdduna bi moo tax ñoom seen seen biddiw foofu la ko yàlla tënk bu dañ lay bañ ba pare soog di la bëgg Ousmane Sonko ñu nekk ci ataa bi ñëpp ko bëgg kenn bañu ko dañuy wax rek bu ñu làqatoo moom la ñuy seetaan suñ xoolal fii.